gannaaw sant sunu boroom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu ci nuyub lislaam boobu yi nu yàlla boole muy baati jàmm ak yërmande barke di leen ziyaara itam te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii ñu nekk muy shahru ramadan al mubaarak waaye itam di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu toll ci biir weer wi mooy bisu aljuma mu def ay ngëneel yu bari weer wi rekk dafa doyoon ngëneel rawatina ñu àggaat ci sayidul ayaam yi ndox sayidul ayaam yi bu tàbbee ci sayidu shuhur yi lépp ay ngëneel la rekk ñeel jullit ñi ay xéewal la weer wi gën ci weer wi su doxee ba tàbbiwaat ci bis bi nga xam ne moo gën ci bis yi loolu day wane ne foofa dara woyofatu fa lu fa waay def ci yiw rekk suñu borom mën na la koo fulal mën na la koo yëkkatil mën na la koo yaatalal bu baax a baax a baax nu ñaan suñu borom mu nangul nu mboolem koor yi ak jaamu yàlla yu def ci biiram lu mel ne nawaafil yépp ak lépp lu baax lu ñu ciy def di ci dabu aw yiw noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko yàlla dollee sàmm te dolli koo may ak wér te dolli ko fee bàyyi ak sago ak kartan ba mu gën a mën a sottal liggéey bi noonu lañ koy ñaanale Cheikh Abdou Samad Mbakke moom Serigne bu radiallahu anhu di ko ñaanal sunu boroom mu guddal aw faram te gën koo dolli wér te gën koo taxaw bu baax a baax kartanal ko ba yéenam yépp mu mën koo teewal man koo gën a matal di ziyaara mbooleem njaboot yi ñëpp di ziyaare ñu jataay bi ñëpp di fàttali rekk sunu bopp waxtaan wi aju ci njàngat delluwaat ci dénkaane yi sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul bu jamono mase yëngu mag ñi dañuy dellu ci sëñ Tuubaa nam daan dénkaane ak nam daan doxe ak nam daan jàngale loolu lépp delluwaat ci njàngaleem lislaam mu tibbee ko ci alquran ak sunna su yonante bi aleyhi salaatu wasalaam mu bàyyi ko ci suñu boroom subhaanahu wa xam ngeen ne bokk yi ci fan yi nu génn wala ci weer yi nu génn ba ci at yi nu génn atum 2021 ak léegi xew-xew yu bari xew na ci réew mi xew-xew yoo xam ne la chaque ni boroom xel du ko bàyyi noonu rekk mu jàll te defu ci ay xalaat man caa génne ay njàngat ndax shaayir ba dafa waxoon ne képp koo xam ne jamono waaru ko li muy dajal ci ay bisam waaru ko kooku dootul waaru ndax ak waar mënta gën a rëy liy romb ci sa jamono fekk la fi ngay fekke tàmbali ba di fekke njeexital la ak yee ci aju yépp loolu bu nit ki bëggee waaru bu ci xalamee setantal ci mën na caa xame lu baree bari te bokk na ci li nga xam ne sunu boroom defal na ko sëriñ Touba ni ko sëriñ Bachir waxe woon ca Minanul Baaxil Xadiim téeréem bu tedd boobee mu doon euh, topp jaar-jaari sëriñ bi ak di ko leeral wax na ne xew-xew yi doon traversé ci kanam sëñ bi ci diggante wuur yi ak seen jëflante àdduna ak la aju yépp nee na sëñ bi sunu boroom joxoon na ko xel moo xam ne amul dara luy romb jàll lu dul nii def na ci ay njàngat yu rëy rëy rëy maanaam dara daw ko romb jàll te defu ci ay njàngat yu yaatoo yaatoo yaatu ndax am na lu muy bàyyi ci am xelam wa saa loolu mooy taxawaayu nit ki ci kaw suuf lépp loo xam ne kaarisa la wala muy xadaasa ab xew-xew rek faw mu war cee jàngat lu baree baree bari bokk yi bu ñu xoolee li ko tàmbalee ci atum 2021 ba fii nu toog di wax ak yéen réew mi yëngutu na ay yëngutu yu bari li ñuy tuddee al fitnatu ñu bari dund nañ ko ci réew mi ay bakkan yu baree bari rot ay alal yu bari itam yàqu ay nit itam gaañu ci seen yaram ngaañ yoo xam ne ñenn ña mën nañoo wér waaye ñenn ña dañuy farat dundaale ak laago ba faw am ndaw yoo xam ne génn nañ teg seen një war ci gaal yi dem ñenn ña yegg ñu def leen ci ay centre di leen toppatoo ko saytu seen wérug yaram ak di seet bi rek seeni ak seen i jëmuwaay mënuñoo àgg sax ci dëkk ba mën a liggéey sàkkaa dem aw këyit daanaka ñu yore leen rek responsable bu daan jiima yore ci sam réew tàbbi feneen ñu yor la xam nga ne amagoo da la neex ñenn ñi des ci ndox mi ñu gis seeni néew ci ay tefes yu wuute ñenn ñi des ci ndox mi kenn gisul seeni néew ba biig te dee su leen gis mukk xanaa dekki ëllëg yomal xiyam gor su góor góorgóorlu ci dunde ñaqu boppam di taaba taaba di dajale amaana sax muy leb ci ay bànk di jënd ka jaay ak ca la ci aju ñu xëy rekk def menum ndiiraan dajji bunti palaasam giiroo marchandise ma taal la leen amalul njëriñ wala lañ fay bàyyi waaye jënd ab otoom doon ci dox ay yiteem ci xaalisu boppam ñu dóor ci ay xeer mu toj mu daw génn ñu taal ko toj itam ay osa ak ay banque ak lenn ci ay station ak lenn ci daluwaayu nguur yi wala liggéeyuwaayu nguur yi waaye loolu it noonu la jëmbate ak noonoo ci biir xoli sénégalais yi ak jaxasoo gu jéggee-jéggi dayo waaye itam noonu la defe ak juuyoo ak ay kàddu yu ñàkk teggin di bàyyi ko ci ay ndaw di jëm ci seen magi réew wala seen jiiti réew wala seen kilifa diine yi taawu seen jàmmi réew bokki jullit yi ndaw yu bari di ay junni waxuma ay téeméer ñu far leen buub yóbbu ci kaso yi daldi leen tëj ñenn ñi ñu teg leen ay waat yu diis yoo xam ne pen yi ca war na topp bu fekkee baat yi dëgg la peine yu diis rek lay mën a doon lu mel ni rebelle ak terroriste force occulte ak yeneen i waat yoo xam ne baat yu tiitale la ci bu ko tubaab waxe loolu lépp am na ci réew mi ak ay menaces yoo xam ne dañ koy dégg ci événement bi gën a rëy ci senegal muy màggal ak Touba ñu ne am nañu jóg ngir indi fi ay fitna ba loolu kenn ci ñi ŋànk kaaraange taxaw na fi kanam sëñ bi di dalal xelam ci wàllu woowu bokk yi lii budul balaa day mel ni balaa amul waaye bu dul fitna itam day mel ni fitna amul kon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu mooy taxawaayu jullit bi ci xew-xew yu mag yu wuute yoo yi ak li mu jur lépp ci ay résultant bokki jullit yi mu nekk waxtu wu lëndëm xam ne réew mi jéggi na ko traversé na ko mu nekk fitna ju rëy joo xam ne réew mi daloo woon na ko mu nekk musiba mu rëy moo xam ne yee réew mi xëyoon na yeewwale ko ñu dundaale ko itam diir bu yàgg-yàgg ñi nga xam ne ñoom la jàpp ne ñoo yor loxo bu am kartan bi muy ñooñ nguur ci mën a dalal lépp lu yëngu wala mën a gàttal lépp lu waroon a gudd wala woyefal lépp lu waroon a diis mu mel ni seeni noppu tëx na ba mënatuñoo déglu kàddu yu ñu baree bari lenn ci kilifa diine yi am naqaru xol woo xam ne daanaka fatu ak noppi moo dee te ëpp jàmm ci ñoom ndax boroomu njaboot boo xam ne boo waxee dee su la dégg boo santaane dee su ko jëfe te boo yëkkatee sa kàddu ci liy niru fitna fitna ja gën a yokk loolu benn solution rekk moo nekk ci sa kanam mooy fatu te noppi te li nga bëgg nga ñaan ko yàlla loolu itam agsi nañu ci tolluwaay boobu bokk yi réew mi ñu nekk ñaani sëñ Touba ñaani gaay yàlla yi jaami sunu boroom yi nga xam ne ñoo fi nekk di jaamu yàlla ak ngor gi nga xam ne saxal nañ ko fi ak alxuraan ji fi dëkke sottiku ci guddi yi ak ci bëccëg yi ak yi fi jëkk a jëkkee jolli ci guddi yeeg bëccëg yi di sàbbal yàlla di ko tagg di ko màggal di ko bàkk ci ay turam di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam loolu jàpp nañ ne moo téye mooy dëgg-dëgg reen yi téye réew mi ba kenom daanuwul kenom mabbul ndax lii xew kat te jàll lu gën a néew wala lu ko gën a tuuti tas na ay réew taal na ay réew bañ takk jëppét ba nga xam ne danañu tabaxaat at yu baree baree baree bari ngir door a mën a tolluwaat fa ñu tolloon ci wàllu koom-koom fa ñu tolloon ci wàllu jëflante bokk yi jàmm nit mënu koo am te fekk am réewam amu ko ak dal itam dobaadoo mënu koo am te fekk am réewam amu ko waaye am réew mënta am jàmm te nit ki ci boppam jëful jàmm waxul jàmm jëflantewul jàmm ndax bu nu waxee am réew mooy rekk ñu dëkk réew ma nu ñu mel noonu la réew may mel fu nu jëm foofa la réew ma jëm fu nu jublu foofa la réew ma jublu loolu rekk moo di am réew am réew ndab la rekk waaye la nekk ca ndab la mooy solo sa mooy ña xam ne ñoo dëkk réew ma xel yi jaxasoo lool jaxasoo ku jéggi jéggi dayo ba mel ni ak fab ku dafa am bokk yi loolu lépp sababoo ci lan ndax dañoo tooñoon lislaam tax jafe-jafe yooyu am déedéet ndax noonu lislaam dañoo songan jullit yi réew mi ne dootu leen fi jaamu yàlla ba tax yëngu bu màgg boobu am déedéet waaye benn problème la rek boo xam ne dafa sababoo walla dafa sosoo wala dafa tàmbulee ci benn minorité maanaam ay nit yu ñi ay nit yu néew yoo xam ne matuñu pour cent ci réew mi maanaam téeméer boo jël matuñ ca benn ñu koy wax politicien muy nit ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy gën a tudde ay kilifay aada ci diggante ñuy wut am réew di ko xëccoo ak ña nga xam ne ñoo yore ma mooy pouvoir ak l'opposition <coughs> bokk yi loolu xar na senegaal ñaari xaaj ñenn ña féete fee ñenn ña féete fële boo duggee ci internet bi dootoo dégg lu baax ci la gën a bari ay nit ñuy saaga di dal ci aw nit képp ko wax lu jiyoog la ñu bëgg ci seen waay yaay siiram noonu faw ba ay portante plainte sax jib na ci ci nit ñoo xam ne jàpp ñu woon ne loolu mën naa dox seen diggante ay tëjante am na ci ki layoo di nga ko wàcc ci saaga na ma xas na ma wax na ma lii tuumaal na ma fenal na ma nangam nangam ñeneen ña féete ci geneen wàll ga it képp ko wax dara ci luy niru lu dul jàmb ci seen waay ñoom itam ñu jóg attaqué rek réew mi daal def ñaari xaaj bokk ci coow li nag mag ñi daañu wax ne xam li xew da koo gën bokk ci coow li xam li xew da ko gën bokk yi bu nu seetee fii <clears throat> fi mujj bi ñu demee ba pënd bi wur ndax pënd bi nag bu jollee ku say bët neexul dootoo xam li xew waaye pënd bi ku mu fatt itam xam li xew waaye pënd bi nag feek wuriwul mëneesu la xam li xew waaye bi pënd bi wuree nit ñaa ngi tàmbulee bëgg a xam li xew mooy ndekete yoo ay woo seen jàmm rek ma ngi mujj waaye yëngatu boo seen itam ci ak dal la jëm naam loolu de mooy baaxu dundug doomu aadama ci kaw suuf boo seetee lépp noonu la ko yàlla bindee baynal xarakaati wa sukuun rek mooy yëngu ak dal di yëngu di dal di yëngu di dàll ba benn bis mu dàll te dootu yëngu mukk loolu mooy dundug doomu aadama jant yit loolu la li jant bi di fenkaale ak la bee di fenkaale duñ mas a bokk ci senn saa duñ mas a bokk ci wenn waxtu waaye jullit yi nag wala ñooñ réew mi mbaa doomi réew mi war nañoo xalaat foofu lu baree bare bari xanaa képp koo xam ne yaa ngi topp xew-xewu jamono li ñuy wax actualité ak tolluwaayu réew mi bi nga gisee démb mbokk mi ñuy wax président Ousmane Sonko ak président Macky sal ñu xàllal Ousmane Sonko aw yoon mu ànd ak Bassirou Diomaye seeni oto du yuuxu ñu wàcc ñépp tali bi ñu jawal def directement palais daal di wàcc takk der yépp yëkkati seeni loxo dóor ci seeni tànk muy firndeel màggal ak jox worma ca seeni teggiin laaj ñoom ñu nekk ci wàllu woowu ñu daal dugg fekk président Macky Sall taxaw ñëw kenn ku nekk jox ko loxo ñu def at taanux taanux mooy doqoo kenn ku nekk jël sa mbagg ak saw loos dal koy dugal ci diggante sa mbaggu moroom ak sa loosu moroom

danañ ci mën a jële njàngat mu réer rëy ci melokaanu jamono ci xew-xew yi nga xam ne moo weesu ñu seen ñaar ñi nga xam ne kenn ka moo fare woon ci genn wall ga muy président Macky sal kenn ka fare ca geneen wàll ga muy président Ousmane sunk nga xam ne toll na jamono joo xam ne dalug réew mi ak jàmbi réew mi lu ci bari yàlla def na ko ci seeni loxo waaye ndax waxtu woo ko yàlla tege ci seen loxo ñu amoon ca kartan am ca man-man ndax jamono joojee jëfandikoo woon nañ xéewal gu réy googu leen yàlla jox 14 millions ci ay doom aadama dëkk ci am réew suñ boroom tànn la fi seen kaw def la njiit def la ngay ko ràññiku ko am baat koo xam ne boo diglee ay junniy junni def boo teree ay junniy junni bàyyi boo bëggee jàmm jàmm yomb lool te xiiwal googu la yàlla defal kat ñi nga seqal réew mi ci say kilifa ñëpp nangul nañ la ko ndax Cheikh Mouhamadul Muntaqa bi ay wi takkee Cheikh Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou mii dafa def ku am taxawaay ku mat a gën a ñaanal bu baax a baax ndax bu jafe-jafe amee day jóg taxaw bu jaree wax mu wax bu jaree ndox mu ndox mu jaral ko lépp ba jàmm maanaam waaye waxtu woo am na kàddu yu mu yëkkati woon yoo xam ne aadu ah, kàddu yu ñëpp ñi may yëkkati ci waxtu woowa ndax jooju jamono kàddu yu dangereux la yu diis a diis yu doya a doy waar yu dëggu te wér itam ak fa mu ko jëme woon ci waxtu woowa mooy kàddum yooyu ngeen déggoon mu jaarale ko ci internet bi daal di nuyu bokki jullit yi daal di wax ne man kat toog naa toog mënuma ko muñ sama xol dafa sot ndax gone yii di dee ci mbedd mi ñii di gaañu yàq gu tar gii ñuy toj di taal jàmmaarloo bi metti ba noppi am ñu taxaw ca gannaaw naan na sëñ bi wax na sëñ bi wax mel ni sëñ Muntaxa daa waxut loolu la mënatu muñ ma di leen yëgal te di leen xamal ne sëñ Muntaxa wax nag li mu war a wax li ngeen war a laaj kay mooy ndax kim doon waxal dégg nay waxam wala déet ndax fa sens yi la ko woo téléphone ne ko coow loolu may dégg muy jókkat damaa bëgg loo man lépp nga def ko ci bu mu jëm kaw ndax du jur jàmm moom mam ko waxal tontu ko ne ko loolu di dafa ëgseegul ci man loolu moo tax xamaguma ci dara mu ne ko gannaaw yow la yàlla def ngay njiital réew am kartan amee lépp waxtu wu ëgsee ci yow dama bëgg nga def ci jàmm te fexe lépp sedd ndax man nga ko yow la yàlla dénk loolu mu ne ko waaw Cheikh sa man moo leeral loolu te bu ko leerulu toon du leer mukk ba ilaa yawmi diini ndax Cheikh Amadou Mountakha moom du génn mukk ci rajo bi naan wax naa ko lii te amul kenn ku ko taxawaloon walla ku génn leen ci waxtu woowee na sëñ Mountakha nee na lii te booba ndaw ñi réew mi ñépp la gën a bari ci ñoom benn kàddu rek la jàmm na sëriñ si génn wax seen noppi gi seen fatu gi te bu nee na sëriñ si nag jiituluñ ci kenn ku mooy sëñ Mountakha waaye lënt moomu doon wëndeelu ci bopp yi nekk ci xeli nit ñi ba ñu baree baree bari seen teggiini ñàkk nañ ci lu bari waaye seen teggiin yi ndaw baaxoo wormaale mag loolu itam ñàkk nañ ci lu bari teggin yi lislaam tëral la ndaw di ko wormaale mag lu ci baree bari ñoom ñàkk nañ seen teggiin yooyu te dara waralu ko lu seeni wax rek kon Cheikh Abdou message boobu mu jàllale woon leeral lënt moo xam ne lëntoon na ci bopp yi loolu def na tawféex bu yaatu def na lu baree bari mu wëlbatiku nag door a wax ak njiitu réew mi directement wax ko la mu ko wax lépp xamal ko ne ku la wër tiim la naan la lii wala laa jàmmi réew mi tey ci sa loxo la ko yàlla def te gone yii di dee ak lii di xew dara jaaruwu ci te booy bëgg muy dakk tey balaa suba mu dakk kàddu yoo xam ne message bu fort la boo xam ne damay wax ne warees na koo bind ci daay wurus warees na koo wékk ci kaw kàggu yi gën a mag ñoo xam ne lii kat bi réew mi bëggee tàkk am na jenn jëmm am na benn sëtu sëñ Tuubaa boo xam ne yëkkati na kàddu yooyu jàkkaarloog buur wax ko te kalimatu xaqin nag inda sultaanin jaayir kenn ku ne xam ne lu mu doon buur bu demee ba tàmbalee dugg ci jalgati wala mu tàmbalee dugg ci loo xam ne day indi fitna wala day indi musiba kooku kaddu dëgg ku taxaw wax ko fi moom jihaar nga mel nga ni ku ja gàddu jaas di jaar ci lislaam ndax dafa nekk loo xam ne yombul wóorut te risque risque la nag ndax lu ne mën na la caa fekk lu nekk mën na la caa fekk ndax ñaari ku yu daas seeni béjjën di mbëkkante kuy dox seen diggante xam nga ne yow lu la mën a caa fekk waaye terewul ba wax jotee lool yi la waxoon bokki jullit yi bu nu xoolee internet bi li mu nu lu baree bare ci lu ñuy naqare ci sunuy kilifa ñu leen koy wax te mënuñu koo saafara foofu rek lay jaar mu mel ni dafa nekk lu ñu boyal loo xam ne kenn mënu cee tënk kenn wala kenn mënu cee dabu kenn wala kenn mënu cee jàpp kenn koo xam ne yaa ngi jalgate ak a tooñ ak loolu nag maal asaf demewul noonu xanaa kay état day aar ay institution jox leen kaaraange lu mag député yi am nañ seen balaa kiir lay ministère yi am nañ seen balaa ni kiir lay ñépp ña nga xam ne ñoo di ñoñam sàkkantumaa njiitu réew ku ne am nga sama mbalaanum kiir lay waaye ñoom nag sunu kilifa yi diine yi ñoom wuutaluñ leen mbalaani kiir lay moo tax tey jii président Macky Sall wala président bii fi nekk képp ko ci yëkkati woon baat bu teg teggiinuwul wax ko ko bu dee suba la balaa ngoon da nga nekk ci yeneen loxo des na la teg foo xam ne it du saa yu la neexee jóg ndax su boobaa moom kat yoonam nekku ci waaye dafa am parti article buñ bu ñu prévoir boo xam ne mooy mbalaanam kiir laa yem mooy mbalaan mi nga xam ne moom la ko réew mi jox ñu ne kii institution la kenn warata dal ci kawam ku dal ci kawam maanaam justice nga koy diggaaleel waaye sax du moom ñu jàpp la teg la lañ la war a teg daan la daan yan la war a daan ci baat bu jaarul rek boo ko wax waaye loolu nag mal asaf maa ngi jégalu bu baax waaye loolu nag amut ci suñ kilifay diine wóotaluñ leen mbalaani kiiray te day ki gën a na yelloo am mbalaanu kiir lay mooy kilifa diine gi nga xam ne moo toog di ab xalifa jiite ay millions yi doomu ku ne xam ne ne yoonu murit du ay téeméeri nit du ay junni jóg na foofu bu yàgg ay millions yi doomu la yu nekk ci réew mi ak gox yu fasantikoo ci réew yi nu wër ak ci biti réew ci continent yépp mu yor kàddu ko foor goo xam ne bu ko yëkkatee bu diglee ay million jëfe ko bu teree ay millions bàyyi ko bu wootee ay million ñëw wuy ko bu laajee ay millions ñëw joxe ko bokk yi kooku defe nañu defe defe naa ne bu nuy wax ku nu war a aar ku nu war a wutal mbalaanum kiir lay kooku mooy kiy jiitu danañ ca masa àgg nag xëy na dañ ca àggul rek waaye danañ ca masa àgg bu ñu xoolee réewi arab yi nu wër sécurité bi nuy jox imam ak niñ koy protéger imam bi jiite ci jàkk ji wala nangam loolu genn wàll walaat ga rek daanaka amuñu ko sax ci suñu kilifay diine bokki jullit yi ña taxoon pënd bi jolli ba ñu bari sarax di ko nañ ko ba socc ci waxin ña taxoon sawara wi takk ba ñu bari lakk nañ ca ña taxoon réew mi di takk ay palaasu liggéeyukaay ñu koy toj di toj ay banque ak place yu ñuy denc xaalis di song ay institution ña taxoon ay nit di dee ña taxoon ay nit di gàddaay ña taxoon ay junni ñu tëj leen ci kaso gi di leen maltraité di leen sonal ña taxoon lacrymogène yi nit ñi di ko noyyi ba ñu am maladie chronique ñëpp di am jafe-jafe ci seen wéru yaram ña taxoon ay nit gàddaay des ci biir ndox mi ba bii kenn gisul seeni néew ña taxoon ay junniy junniy ndaw génn réew mi ña nga ci biti réew ñu teg leen ciy barab di saytu seen mbir waaye ña taxoon ña taxoon ña taxoon ngay saaga sa kilifa yi diine ña taxoon ngay layoo ji ak sa mbokk ci maa ko wax lii moo ma wax lii ña taxoon ngay bañante ak a xiiroo ak a ko xëccoo ñooña gise nañ ci jantub démb saafoonte nañu kenn ku ne jox na sa morom loxo ñu tegante ay dënn daal di doqoo kenn ku nekk kafre laaj sa morom naka yaram bi mën a yow it naka yaram bi kenn ku ne alhamdulilah kon seen yaram ñu ngi ci jàmm waaye am na yaram nag yoo xam ne moom ma ngi ci biir bàmmeel waaye am na yaram yoo xam ne it am na gaañu gaañu yoo xam ne ñàkk nañ ci lu bari dóor wér mbaa nañu waaye am na yaram yoo xam ne itam ak laago lañuy faatu faatuwale faw ndax seen loxo des na ci mbaa seen ab tànk mbaa seen ab cër des na ci waaye am na yaram yoo xam ne it dundab jën yi lañu ci biir géej gi gisul seen niiw ba nëgët yi am na yaram yoo xam ne it ña leen suul ca tefes ya ban génnee ma leen suulee na xool moo tax dañoo profité suul leen benn yoon rek am na yaram yoo xam ne yàgg nañ ci kaso yi lool seeni kër tas na seen ginnaaw seen i njaboot jaxasoo na seen ginnaaw am na yaram yoo xam ne ñu ngi ci bitim réew tàggatem bi mënatu mënatuñoo àgg liggéey te mënatuñoo ñëw ndax amuñu kayit waaye it am na yaram yoo xam ne itam ku xëy doo nuyu sa morom mbaa boo nuyoo sa morom du yi loolu ku ci deful njàngat bàyyi ko noonu rek mu jàll day mel ni kon danga ngaa waaru wala da ngaa bëggut xalaat ak waar gu rëy ngoog goo xam ne jërul ubbi ak téere jërul diglu benn boroom xam-xam ndax waar gu bind ci jaww ji la ñépp di ko gisandoo kenn ku nekk mën na cee xool rek seet ko ma ne ñi taxoon loolu lépp xew tey jii ñoom ñaar gise nañu bu ko defee ñu yëg ci it ne yàlla mbiram fi'latuhu daqiqatun sëñ Tuubaa ne jëfi yàlla dafa sew jëfi yàlla maanaam borom jëf ju sew la ci gàttal waaye ñu déggee ko nag lam jubloo wax jëfi yàlla dafa sew daan ne kii setantal sax ki dàq settantal léeg-léeg daf ko yëf yi da koy réer sàkkaan ak ki ne xam mu settantalut moom settantalkat bi ci boppam jëfi yàlla da koy réer léeg sàkkaa ki nga xam ne moom settantalut kon danañu xam ne diir bu néew ci ginnaaw kii nga xam ne mooy njiitu réew li weesu ku ko noon gone yii ngay xeexal day jàmmaarloog ñoom sa toogu bu nooy bii amma xarib fan yu néew a ngi ñëw yoo xam ne da nga wàcc jóg taxaw ñoom ñëw toog ci loolu mbokk yi loolu neexul na dégg ku ko waxoon itam dañu naan da nga ko wax ci quelqu'un politique rek mbaa science politique parce boo wootee baatin kenn du la gëm ndax fii jamono toll moom nit ñi gëmatuñu baatin nit ñi moom leneen lañ gëm waaye ba mu des loolu xel du doonutoon xalaat ne loolu war na mën a nekk ka nga xam ne it mooy ka ci gën a ràññiku di njiitul Pastef Ousmane Sonko ku noonu la dongoom bu dee ci ginnaawam nga xam ne moo ko yaram moo koy wommat kooku mooy mujj nekkaat doon kilifaam ba noppi yilif réew mépp lool it dana bett ñu baree bari tey dana jaaxal ñu bari ndax dongoom boobu ñim séqaleen géew bi moo ci gën a niiwaayat amaana waaye itam moo ci gën niiw ay activité ci wàllu politique mosuñoo xam mu milité ci benn parti bu ñu xam mësta yor genn ndombook tànk ci pali réew mi doonu nit ku ràññiku ku ci yàgg a dox bañ naan mel na ni waa sàngam ak waa sàngam déedéet moom daa xëy ñëw rek ni ko français yi bind ci seen i yëglikaay ne ngóor si kat gone la goo xam ne moom daay ñëw fettax rek te dara mënu koo kal ba mu xëy rek dem ca pale ba moom noonu lañu ko jàngate réewum France noonu ko dara mënu koo kal ba mu dem ci pare ba waaw dara mënu koo kal ndax yàlla tu'til mulka man tasha yàlla buy fal buur newut dama leen di falal ci gën ci yéen wala ki ëpp xam-xam ci yéen mbaa ki raw ci yéen mbaa ki man ci yéen mbaa ki mag ci yéen yàlla dane damay fal ki ma soob damay fal ki ma soob si naa sidna xuseynu sidna muawiya waxan na ko loolu ba mu waxee moom ci ay baat mu ne ko yow kat yonent dalaa jur waaye da ngaa desee dégg alxuraan yàlla néewut damay fal ki gën ci yéen waaye dana damay fal ki ma sob te maa ko sob kon tu'til mulka man tasha'u te nguur aw daggit la ci nguuruk sunu borom loolu defe naa kenn du ko sikki sakk aw daggit la ci ndax force la boo xam ne bu ko sunu borom roofee ci nit ki day soppi léppam façon si jomaay mii nga xam ne bërki démb kàddu gaa ngi woyof lool bu toogee ci palaato yi ñu koy saaga ak gëdd ak di ko yuuxu télévision yi dégg ngeen loolu su génnee nit ñi di ko rey ak di ko nangam jàppe wuñ ko nit ku foor tey jii mooma yilif yilif la yilif ka yilifoon réew mu yilif ñëpp te boo ko weddee bu subaa na ngeen daje ci tali bii tali bii su ci tegee ab tànkam ñëpp danañ wàcc abal ko ko ba mu àgg fa mu jëm te fu mu jëmit ca kam jëm ñëpp danañ ko xajal digganteem ak kooka ba mu jóge fa bokk yi nguur lu doyo doy war la waaye ki nga xam ne moo ko yoroon itam nga xam ne tes li képp wala sëqat su ko masaa def des na liggante lan moo tax mu sëqat mbaa mu tes li ndax wére di la wala naturel la kon ñëw yor wàllu wér gi yaramam ña gën a spécialité gën a xam mbir lañ koy booleel ñoom ñooy saytu wéru yaramam su amee dara lu yég yëg avion spécial la jël avion boo xam ne dafa jóg ngir moom nga xam ne bu duggee ci biir day mel nekk ku nekk ci biir këram cib saalam télévision yi place à masse yi barab yi ngay lekke fi ngay bind lii sa cabine de nangam sa bureau nangam lépp mu ngi ci avion bi lépp ñu préparer la ko ci nga xam ne yow boo duggee ci avion bi day mel ni yaa ngi biir pale rek mu wéyeeg yow ba ca docteur yi gën a màgg ñi gën a xereñ baa ñu ëpp boog ay jumtuwaay ñu jëflanteeg sa yaram ba la lépp baax na lépp bien nga door a ñibbi si wat kooku loolu la yoroon yàlla joxoon ko kartan goo xam ne itam bigam bi bigam bi big bii rek nga xam ne bigub cent franc képp comme big yi nga xam daa mel ni kun fa yëkkoon big bi kun fa yëkkoon lay nirool mooy day mel ni loo bëgg mu am rek doole jooju la signature wala bigu président di ame nga xam ne boo bu bëggee nga am passeport diplomate nii rek lay def ñu fab carnet ba sànni la réew mu la neex wàcc te kenn du visite say poste kenn du la laaj dara duñu la jaarale sax fa ñuy jaarale ñu ko amut bokk yu xool leen jooju doole kum bëgg nga milliardaire tey génn ci pauvreté faw doon koo xam ne doo doo yor ay million waaye ay milliards ngay am bigam boobu rek mën na ci rëddaw rëddu jox la sànni la ca fonction boo xam ne da ngay da ngay da ngay tàkk fa waaye ku mu bëgg nga fanaane kaso itam mën naa def ay pexeem procureur autosaisiru rek foo nekk ñu fekk la fa jàpp la boo demoon génn réew mi sax li ñuy wax mandat d'arrêt international lañ lay dóor nga xam ne réew moo dugg fu ñu la gis rek jàpp la loolu lañ lay dóor fu ñu la fekk rek jàpp maanaam fu la jant bi tiiw na mel ni kuy daw guddi <laughs> kuy daw ak guddi maanaam di daw ngir bañ guddi dab la jamono ja ngay sonn ci la jant bi la guddi fekk <laughs> xoolal kartan googu sëñ bi soo ne ñokket jóg jëm Touba mbaa Fuuta mbaa feneen cortège bi lay wër gendarmerie ngi ci takk der ya gën a aay ak ña gën a xereñ ñu ngi ci biir cortège boobu waaye sappoor yi itam mu ngi ci ndax mu catastrophe amee waaye médecin yu doy itam ñu ngi ci ndax bu ñu xalaatee dara ci catastrophe bu amee ak seeni garab waaye lépp loo xam ne nit dana ko aajowoo ci dundam ci wàllu sécurité taxaw ak la caaju lépp mu ngi ànd ak yow yow oto ba ngay dugg ak ña lay jiitu ak ña lay féete ginnaaw ak ñay fekkook yow ak motar ya jiitu yoon wépp ñu takk koy takk der heure bi nga war a jóg bu ñu xamee ne yow départ nga ci pale bi rek oto du daw xanaa say oto ak yow ñi nga àndal sa cortège kenn du ko jege ñu sox seeni fetal téekoom dëgër daal di jublu ci xibla yépp nga xam ne yow diirab li ngay egsi musiba mënulaa bàyyi ko fenn lu dul ni jànkonte nañu moom te fa nga jëm protocole ba jiitu na la fa ak say gëstukat ak say xeltukat ba nit kun fa ne jàkk rek te amuñ ci moom confiance ci ne nitu jàmm la wala ku bëgg a indi fitna la danañ ko génne ba du fa xànd yow du la jege xoolal barki dem bi ñëwee ci université bi sécurité bi dañoo yéeg ci kaw étage yi ci kaw taax yi taxaw tiim baas bi nit ñaa ngi ci suuf te ñenn ñaa ca kaw ci kaw bâtiment yi Touba gépp ñu koy surveiller di ko xool booleeg seeni appareil yi nga xam ne weñ gu mën a rey nit rek boo ko yoree xam nañ lu mu doon ak loo ci jublu bokk yi xoolal kartan googu waaye ci tarangay adduna tam ñu taajal la caisse noire caisse goo xam ne caisse gu ñuul rek lay firi maanaam xaalis boo xam ne kenn du ko audité duñ koy saytu duñ ko topp duñ ko laaj loo ci bëgg a def def yaa xam daal mu ngi noonu tey du ay millions waaye ay milliards la waaye sa dund ak sa dunduk njaboot sam njàngak ak seenum seen lépp réew mi la ko ameel même boo wàccee ba dem sax réew mi la ameel yow sa payoor boo xam ne sa lépp moo la ko yoral ba ci dëkkuwaay ak logement foo bëgg a nekk ca dund bokk yi kartan googu ak doole ak doole jooju ku ko yàlla jox ba yàgg muy xëy di ko nocc ah yërmande yàlla bari waaye nocc gi dee sa xañ na ci ndax yàlla wa tanziul mulka mi man tasha bu koy joxe moom dala koy roof rek nga ànd ak force bu kenn atanul waaye bu koy nocci moom sëñ bi fu waay toll dina dégg riir ma garab gu mag bu dee daanu riir ma day foor garab bu dee daanu jànjang riir ma day foor foo toll di nga dégg riir ma te it foo jafandu <clears throat> foofa day fàq ànd ak yow loolu moo waral parti bu fort bi nga xam ne moom la amee woon moom njiitu réew wi lii fi bàyyi ko nga xam ne kuñ masa jàmmaar lool daan nañ la kuñ mas a demal élection gañe nañ la am man-man lool am kartan lool bennoo jamono bi nga xamee ne ci la nguur gi war a rocciku li yàlla jëkk def mooy fexe ba tasaare seen diggante réeral leen ñee aw fee ñee aw fee ñee jëkk aw fee ñee jëkk aw fee ñee jëkk aw fee mbir mi yàlla jaxase ko jaxase koo xam ne da xam ne ñoom jaxase wuñ ko yàlla yàlla suñu borom moo ko jaxase bu bëggee dogal da cee lëm xeli nit ñi bu bëggee sottal ab dogal xeli nit ñi dañ dul àttan benn pexe boo xam ne mën naa gàllankoor lool bokk yi nguur googu ñu xëy nocci ko ne ko ruseet nga xam ne sunu kilifa googu nga xam ne moo fi nekkoon fukki at ñaar yi weesu tey ji maak moom ak yow ñoo yem képp att ci réew mi bu nu dajee ci tali bii day dawal nga dawal rek boo ko gënee gaaw double ko bu la gënee gaaw double la waaye loolu dong kat ci ngeen mën a yem bu ngeen dajee ci bunt day dugg képp nga dugg soo ko njëkkee am position nga dugg su la njëkkee am position nga dugg loolu dong ngeen man bu la tooñee danga koy yóbbu ci yoon boo ko tooñee mu yóbbu la ci yoon yéen daal ay citoyen yi ngeen amatul dara lu leen wutale loolu bokk yi ku ci xalaat xam ne li ñu naan yàlla mayewul day able waaye adduna bii de moom lu la fi yàlla jox moom ko dala ko abal damaa jàpp ne may alaxira doon waaye adduna bii moom lu la jox mayilu ko waaye dala ko abal dañ daan wax naan buur benn noppam tëx na ba ca des lu ko neex rek la mën a dégg loolu it moo waral boo faloo am gaa yu ñëw fi sa wet di la xalamal doo moromam yaa ko man kii dalaa yab kii faw nga teg ko ci yoon kii xamut li ngay peese ci réew mi kii xamut nangam kii xamut nangam loolu day bari ci say nopp yooyu itam mën naa dugal nit ci guuta man koo dugal ci garaawaal yi gu nekk te loolu yàlla nu ci yàlla musal bokk yi damaa wax ne fitna ji tàkkoon ci réew mi atum deux mille vingt et ba fii ñu toll nga xam ne mbooloo mu dul jeex faatu nañ ci ci ay conditions yu wute ay bal réel tàkk nañ fi dal ci ay bopp seeni borom daanu rasu sedd guy ba fii ñu toll ay ciir dagg nañ ci seeni boroom yàqu ba faw ay nit gàddaay nañ ci génn réew mi ñee yàgg jee yëggum ay nit tëdd nañ ci kaso yi ak yeneen ak yeneen bokk yi fitna jooju ñaar ñi nga xam ne ci ñoom ñaar la sababa woon ginnaaw yàlla gisee nañ démb joxante nañ loxo léegi nag nun nu nuy def gisee nañ démb joxante nañ loxo te daa mel ni sax waxtaan nañ lu jiitu lool ci nañ ko waxee waaye gisee nañu démb joxante nañu loxo saafonte nañu kon nag nun kon nu nuy def xanaa jàpp naa ne ñaar ñu meroo war ngir loru de war nañoo mën a joxante loxo ñaar ñu bëggoon a baante ngir loolu it war nañoo joxante loxo yàlla noppi na wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa